bu daanaka bëri na expérience laaj bi ñu mën a samp mooy lan la mën a réew réewam jàpp naa ne ci message bi la faaw mu wax askan wi ni mu ngi dem waaye dina woy di jëriñ réewam. part mais il ne quitte pas. il va continuer lui aussi à travailler pour l'Afrique pour le monde comme il a fait pour le Sénégal. ci atum 2012 sénégalais yi daal di koy tabb ci kanamu maître Abdoulaye wadd waral nag faaw mu daal di leen sant. Sénégal def nañ ko confiance jox ko ñaari mandat loolu. Euh, lu rëy la ci Sénégal defe naa war na leen delloo njukkal euh, ci dernier message bi quand bile discours bu mujj nag doon na ab tàggatoo wala ab xaar leen ma maa ngi ñëw loole nag lu jar la.